mbokk yi ñu ngi noonu ci demi-finale bi dox ci diggante Ngor Ñaax ak Sidi Sembe ñu koy wax Seydi Bargny ñu ngi noonu ci wàllu demi-finale yi mbokk ci wàllu wee poids léger bi ci wàllu raw gàddu gi yaa fay am eh, Babou Kaling Mbaye Babou Kaling mooy borom fii. reporter yi daal man jaaxal lañ ma. feebar rek la ñuy jaay mbëri dañoo bari macha waaye combat baa ngi doon dox ci diggante. Sidi Bargny ak Ngor Ñaax. Sidi Bargny ngemb Lacoste bu weex bi. Ngor Ñaax ngemb lu ñuul li. Kaling mooy bëre ci wàllu wee. Boy Faye di bëre ci wàllu wee. ah plateau bi. combat yi fa nekk yëpp ay combat espoir la yoo xamante ne combat yu neex la. Eh. Boy ma ngay bëre waaye Babou Kaling ak Ongué Ongué Babou Kaling Ongué ndeysaan Babou Kaling ak Ongué may xanaa mbokk internet yee la koy wax Ongué junior ah xanaa mbokk internet yee la koy wax waaw non man daana la yow tam xale yi dañ may woon gannaaw rek mu du ma leen xàmmee suñu jàkkaarloo ko man rek ma teg oh, nga ne Babou Kaling ku muy bëre Babou Kaling seen i bari ñu lay bëril non non Babou Kaling Ongué Junior. Ongué Junior Babou Kaling ndeysaan yow wàllu nga am seen i ak Ngor ñaax mbokk ñu ngi noonu Boy Faye am na ndam qualifié na moom Boy Faye adversaire bi da koo mbëkk ndeysaan da koo mbëkk ndeysaan Boy Faye ndeysaan ak général. eh Boy général ña ngay juug ku nekk ngay yëngu ku nekk ngay yëngu Boy Faye général ndeysaan Sidi Barñi ak Ngor Ñaax jàppante nañ Mansour Sidi Barñi Ngor Ñaax Mansour may ma ci ndox mi ma naan Sidi Barñi Ngor Ñaax may leen ma ci ndox mi ma naan waa Leewtoo sama xarit yi wax daa métti ay ca ma nga noonu isaan jërëjëf Mansour may na ma Boy Faye général Malika Ada Boy Bawol général Malika aa ah! général Malika Boy Faye eh ndeysaan mbokk yi ba tey ñu ngi ci diggante Sidi Bargny ak Ngor Ñaax lamb ja yëngu na ponkal ya ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ xale yi seen bopp doole doxul jàmm Sidi Bargny ak Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax ña nga ca combat bi ba tey ñaari ñaari ndaanaan ñooy bëre nag combat bi faw du yomb dox ci diggante Sidi Bargny ak Ngor Ñaax combat bi mënul yomb de Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax ñu ngi ci Sidi Bar ñu ngoor ñaax daan na ko Kaling daan na Babou Kaling Kaling dem na final Babou Kaling dem na final ba yëngu na Babou Kaling dem na final Babou Kaling dem na final Babou Kaling dem na final Babou Kaling dem na final Babou Kaling dem na final. Ndeysaan arbitre bi sifflé waat na Ngor ñaax daw na jël tànk ba jël na tànk si di bari ñi da koy jeexal wala déet Ngor ñaax arbitre toogal ngir yàlla yàlla fay la ñaax Ngor ñaax Ngor ñaax si di ñi deuxième pied Ngor ñaax si di ñi jàppante nañu si di ñi caxabal mbot mbot mbot. mbot mbot yegg nañ suuf Ngor Ñaax war na ko domba Ngor Ñaax war na ko domba stade bi jug nañ taxaw Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax war na ko domba Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny ma ngi koy xëcc ma ngi koy jéem a piic Ngor Ñaax Sidi Bargny lu xew Ngor Ñaax Sidi Bargny ndeysaan Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax daan na Ngor Ñaax daan na Sidi Bargny Ngor Ñaax daan na Sidi Bargny Ngor Ñaax daan daan na Général daw na Ada Boy Bawol daw na ndeysaan arbitre bi sifflé na mbokk dox ci diggante Omo bi Badiana ak Ndaysaan Bas Ndaysaan gaa yi di ko wax Calme Ndour numéro 2 ah? mooy Bas moom moo la wan ginnaaw ngem boo ngemb lu bële li di bëre Eumeu Sène bu Badiana combat bi ñu ngi toll ci demi-finale yi mbokk yi mënut yomb xale yaa ngi wane seen bopp xale yaa ngi wane seen bopp xale yaa ngi wane seen bopp ndeysaan xale yaa ngi wane seen bopp ndaysaan Amma bu Badiana ak Ngel Jonn numéro 2 ndaysaan ñu ngi noonu dina yombam déet dox ci diggante Ngel Jonn numéro 2 ak Amma bu Badiana combat bi dina yombam déet Ngel John numéro 2 ak Eumeu bu Badiana Ngel John ak Eumeu ndaysaan Ngel John ak Eumeu bu Badiana Eumeu bu Badiana moo la woon ginnaaw Ngel John nga jàkkaar lool Mbaye Babacar borom Leewtoo production Ngel John Eumeu bu ñu ngi ci combat bi Ngel John Eumeu bu ñu ngi ci combat bi ndaysaan Amadou Badiane ak Ngel jon ñu ngi ci compétition bi ñoom ñaar mbokk yi ñu ngi toll ci final bi ndaysaan xale yaa ngi noonu mbokk yi tey gisuñu Serigne Ndiaye 2 bu Faas mbokk yi tey gisuñu Doudou Sané mbokk yi tey gisuñu Kalmu Ndour yi tey gisuñu ndaanaan yi nga xamante ne ñu ngi leen doon xaar ci làmb Serigne Ndiaye nee na daa blessé de nee na loxo ba day metti xaw ma baaraam ba ci combat bi doxoon ci diggante mag a Doudou Sané fële ca final ba ndeysaan xam nga mbëri samay xarit lañ moo tax saa su ne ku ci gaañu ma sànni la xeer waaye ñoom ñëpp ñoo far ñu koy ñaanal mu tane ak jàmm ak salaam dellu siwaat ci làmb ji Serigne Ndiaye de ndaysaan yi ñu ngi noonu ba tey ci final ndaysaan ñu ngi noonu ci final ndaysaan ñu ngi noonu ci final bi oh Ngor Ñaax daw na ndaysaan Ngor Ñaax daw na ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu ndaysaan xale noonu Ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan oh Serigne Ndiaye deux daa mel ni dugg si na de ndax kee di ko sotti saafara ma nga ca ma ngay juug cey làmb adduna na daw na jëli ko ndaysaan ngel jonno ndaysaan amma ngel jonno amma ngel jonno amma daan na ngel jonno amma bu bajaana daan na ngel jonno amma bu bajaana daan na ngel jonno amma bu bajaana daan na ngel jonno Amadou Badiane daan na Nguel Dione mbokk yi bi sifflé dox ci demi bi ñaari Ibrahima yi Ibrahima Faye ak Ibrahima Thioune waaw waaw ñaari Ibrahima yi la boole ñu ngi noonu ci demi bi mbokk yi ñu ngi noonu ñaari xale yaa ngi leewaatoo Ibrahima Faye ak Ibrahima Thioune mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu Ibrahima Faye Ibrahima Thioune ndaysaan Ibrahima Faye Ibrahima Thioune mbokk yi càmmoñ ngemboo ngemb lu vert le Ibrahima Thioune moo la féete ndi joor ngemboo ngemb lu ñuul li daw na dóor na ko tànk Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune Ibrahima Faye dóor na daan na ko ndaysaan wéyal na dem na final ndaysaan ci poids léger bi dem na Ndeysaan Ndeysaan